jiirë ngeen jëf waaye yeewi yi yeewante ci seen biir ñoom la yéene kaay yi yeewoo bokk ci ñoom Walf Quotidien bi xëy bind ne yeewi askan wi tas na tasar ba fu jur fa ak ak defante bu yàqal waa taxaw ak waa yeewi askan wi Les Échos nañu li xew moo di kerew ci Assemblée nationale ba ñu fay ubbi session ordinaire unique bu penc ma ak waa taxaw ñoo fa doon dëmmante ba mu xañ leen ñeenti poste la séenekaay di ñu ci dolli ne bëccëgu bu yees beeg ni mu tëddee bés bi le jour mi ngi ñuy wax ne waaye yeew yi néew nañ ca doole lool dañoo mel na ñu ñu suqi seen laaf député yu taxawu yi ak yu yeew yi ñoo doon fantasiro ba tax Birame Souleye Diop ak compagnie ñàkk fa ay poste lu mu jur jamono ji journal bi nee nañu mooy waa Benno Bokk Yaakaar ñooy majorité ci bureau ba journal l'info ni mu gisee yëf yi ba bind ko ci xëta njëkk mooy guerre ba tàmbali na ci diggante Khalifa Sall ak Ousmane Sonko anki ñu dajale fukki député ak ñeent yi ñu am ci assemblée nationale génn ci groupe parlementaire yeewi askan wi point actu ne ñu xàcc woo gis wërsëgu waay la yeewi sàllar na ci assemblée nationale tas na tasar waa Benno Bokk Yaakaar taxaw ci seen wet lu wadd ñu for ñu fore ba tey ci xët mu njëkk journal bi ne bataille de leadership ba ca Tivaouane ma nga mel ni tulleeg màlle ci diggante Diop Sy ak Mamadou Diagne Sy Mbengue le ma nga fay mobiliser ak historique la ci képp ku yeewoo ci réew mi kaddu Cheikh Omar Anne la ci xët mu njëkk direct news l'observateur nañu ca njum fa njum bi Cheikh Omar Anne yëkkate yooyu la kaddu keroog samedi ci finalu football buñ ko fa parrainé woon sursoi nañu mu defoon mobilisation bu rëy mbooloo mu takku ju fu nekk ci Podor ñëwoon wuy ko dëkk bay riir la fa yëngu yéenekaay bi nee nañu li ko yëngal moo di ndamal Amadou Ba ci élection présidentielle yi lii ko jàmmaarloo ak Amadou Ba kenn ca di Mahammed Boun Abdallah Dionne moom la l'observateur xëy li ñu bëri bëgg xam mooy lan moo tax moom Mahammed Boun Abdallah Dionne mu xëy xëy dajalee kaakeem wan ginnaaw Macky Sall ak ni mu ko déggale woon ñu déggee ci xët mu njëkk journal l'info ab appel di woote bu ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour def jëmee ko ci jeunes yi ci réew mi ak immigration clandestine moom Pape Malick Ndour dem na bay wax ndaw ñi ne nation bi tàllal bu leen ko abandonné ginnaaw bi mu dellusee ci li mu liggéey ci réew mi ngir saafara tawat ak nekk ci réew mi moo xam ci pouvoir bi nga fare wala ci opposition bi ñu ànd booloo waxtaan ak ndaw ñi yee leen sensibiliser leen ngir ñu teg ci suuf mbiri immigration clandestine nee na it mi ngi woo camarade am yi muy Aly Ngouille Ndiaye di Mahammed Boun Abdallah Dionne ba ci Aminata Touré ngir ñu teg lépp ci suuf dellu si ci biir famille bu Benno Bokk Yaakaar ngir ñu àndandoo wéye li fi président Macky Sall def ñu def demi tour dellu ci journaliser ko mi ngi ñuy xibaar ci xëtamu njëkk mbir mu yéeme mu xew ca buun ga ca yëmbal benn waay bu ñu fa doon moom la ñu na juróom-ñaari nit yu ca dañoo tuumay dóor nit ba mu jële cee gaañu gaañu jaare ca faatu liñ leen di toppe ñu topp ba tey xew-xewi jamono yi ci yéenekaay bi ci l'observateur benn du moom ubbil yéenekaay bi Jóob benn dawalkatu jakartaale bu am fanweeri at dafa soxla boppam wax ko benn xaritam bu ñu naan fay fay na ko jox ma 5000 mu wutal la xale bu jigéen Jóob yëkkati junni jox fay fay jël junni bi dugg dëkk bi ngir wutal ko xale bu jigéen Jóob toog ci néeg bi di xaar xaar ba yàgg mu génn di ko soññ na mu ko tontoon neexu ko jàppante ba Jóob dóor ko kalaaru ba mu yoroon ci bopp bopp ba toj deret ja mu jaare fa xam